Euh, coopération économique euh, laata loolu itam moom moo jiite woon commission des lois euh, décentralisation travail ak droits humains jébbal nañu ko suñu borom ni ki sank ko ci armeeru Yoff ñu ondu ceeg Ndeye Khady Thiam Tall mi dellu si ci jaar-jaaram Ndiéma Ndiaye Ba doonoon ab député nekkoon na président bu commission wu loi décentralisation travail ak droits humains ci assemblée nationale xam-xamam màcc jëm ci wàllu gestion wu entreprise yi ak itam mu nekkoon administrateur civil doonoon na présidente bu commission économie générale des finances du plan ak itam coopération Ndiéma Ndiaye Ba ñu daal di ko nag sargal ci grade chevalier ci ordre national du Lion nekkoon itam officier ci ordre national du mérite doonoon na directrice bu centre national d'état civil bu Sénégal. ci atum 2005 ba moom Jéema Njaay Ba gane si àdduna ni ñaar fukki fan ak juróom-ñaar weeru septembre atum ca Saint-Louis ña ngi ko député ci élection législative yu atum ci liste départementale bu Nioro du Rip ci boobee liste sax la ñu ko daal dee nag def deuxième vice présidente bu conseil départemental bu Nioro du Rip ci ba léegi nag ma nga doon siéger ci assemblée générale consultative bu cour suprême foofee sax nga xam ne daal dinañu ko fa fal ak conseillère tey ci wàllu yi honorable député maam Diarra Fam jokkoo nañu ak moom mu koy seedeel ni intellectuel bu mag la woon waaye bu sañoon dañuy tabax stade bu Nioro ndax bëgg-bëgg ki fu jóge la woon ñu déglu ko jigéen ju mag dem na jigéen ju yiw jigéen ju yaru jigéen ju bari kersa jigéen ju am tegg jigéen joo xamante ne bokk ci jigéen ñi gën a jàng ci Sénégal nekk nit bu baax nit bu nangu liggéey nekk parlementaire bu am solo wax fa dëgg yàlla boo ko sentiree buy wax ni baatam di loxee nga xam ni nitu valeur la ñeme dëgg la bu gëm yàlla boo xamante ni waxam sax bëriwul ba ci démb rek du muy kaas statu ñoro bi laay dajeex moom si bunt bi ak Moustapha Ba ma ne ko Moustapha Ba pour lan du ngeen a son dernier vœu moo doon statut Nioro bi donc président Macky Sall na ko jël en considération te defar ko en mémoire de la députée Diema Ndiaye Ba. Mm. yal na ko yàlla xare àddina ñu waxaat ci gréew xiifal bu ay euh, ñu nekkoon ay liggéeykat SIAS euh, SOTRAC ak AMA Sénégal nekk di def euh, ci fàttali ay entreprise la yoo xamante ne dañu ko tëj ñoom ay at a ngi nii ñuy daw ci ginnaaw seen ay indemnité juróomi fan ak léegi bu ñu ko tàmbalee ñett ci ñoom rawale nañu leen hôpital secretaire général bu syndicat national bi ëmb agent de la propreté rénovation bokk itam ci boobulee collectif moom dellu si na ci détermination bi ñu am ne fii la ñu bëgg jotuñu ko seen grève boobulee duñu ko dakkal ànd ceeg moom Ousseynou dem ci yoon ba yoon may ñu gain de cause régime bi fi nekkoon muy régime Ablaye Wade nag fayoon na soixante quinze pour cent wu xaalis bi régime bu Macky Sall nag ba mu ñëwee fayewu ci dara Macky Sall nag ci wàllu boppam moom moo waxoon ci meeting de clôture bi mu doon def Guédiawaye ni après sa réélection dina fay bu soobee yàlla extravageur siyaase extravageur amaa yi mais ba léegi defu ci dara li ñu yoreel nag ay un milliard et demi la ñu yoreel ancien siyaas yi ameel deux cent ancien travailleur amaa yi deux cent ci ñoom ay volontaires mujj di ñoom comme seen kër ne mën na deux cent yoo xam ne génn nañu àdduna ci ci biir liggéeykat yooyu ñii di détourné ay milliards ñu seen ñaq seen àq la ñuy laaj aujourd'hui benn membre gouvernement boo xamante ni déplacé wu te af mi toll na foo xamante ni situation bu doy waar la mais ba fi mu toll nii ñu ngi seetaan. sa jàngat ndey di met ci tànkam lu bu autorité yi ndax euh, juróomi fan ñu ngi koy grève ñett ci ñoom ñu ngi hôpital. xam nga xadi man dama jàpp rek ni état c'est la continuité parce que boo xoolee problème entreprise yu ñu liquidé cela fait maintenant un quart de siècle donc am na traversé na ay régime yu bëree bëri te euh, wax dëgg yàlla dama jàpp ni régime bu ñëw bu fekkee amoon nga loo doon dugal kon bor bi jeexoon na bu yàgg te aussi ce qui est inacceptable mooy ay liquidateur sax di ko seen xaalis parce que bu ñu sukkandikoo ci yenn ci ay liggéeykat yi nga xamante ne ni ñoo nekkoon euh, ama Sénégal wax nañu même wax nañu ni benn ci liquidateur yi nga xam ne tey jii député la ci assemblée nationale laal na 200 millions de francs CFA alors que ñoom ñi nga xam ni seen entreprise boobu ñu doon liggéeyee ñu def fa seen ñax ba léegi si ñu ciy topp ay ati ati at mënuñ jot seen xaalis man nag su ma gisee mbir yi yéexee nii tagatembe nii parce que xadi aussi xel du jariñ lu xalaat le président de la république mës naa ko couvrir euh, fële ca palais remise de cahier de doléance ñuy wax ba dugg ci mbirum passif social yi mais li mu waxoon ci kàddu yooyu jamono yooyu rek mooy am na passif social yoo xamante ne nii euh, déjà bi entreprise yooyu di tëj man président boobu fekk na peut-être que maa ngi door a dugg école donc pour wane ni daal affaire bi c'est un long processus te jàpp naa ne affaire bi warul deme noonu mm. seen àq la ak seen yelleef nañ leen ko fay te xadi rappelé ni même Boun Abdallah Dionne mm-hmm. commencé war na rencontrer les travailleurs euh, de l'ex-Sotrac ba waxoon ni seen mbir dina ko traité cas par cas mm-hmm. alors pourquoi léegi autorités yi dañuy jël ay engagement parce que duñ ko respecter mm-hmm. Ndeye Dimet ñu wax def nañu ko ñetti conteneur yu yaboon ci biir ay munitions de guerre ay mitrailleurs ak itam ay kalachnikov moom la ñu teg euh, loxo conteneur yooyu la ñu ngi nekkoon ci ab bateau guyanais ña nekkoon ci biir de ay doomu Ukraine euh, naka noonee bu ñu ko xaymaa ci ay koppar mat na ñetti milliards ñoon du ci Alassane Balde mi ñu jàngatal communiqué bu direction générale des douanes teg loxo bi nga xamee ne nag teg nañ ko loxo ci waax réew mi nag jëm ci matériel militaire moo xam ay mitrailleur ak ay kalachnikov ñëwul nag ngir dalal xelu autorité sénégalaise ci jamono bi nga xamante ni nag ñàkkum kaarange mi ngi wéy di lëmbee dëndu Afrique yi ñu ne yooyu la munition de guerre ñu ngi ko dencoon ci ñett ci ay conteneur capitaine boobule bateau ñu duppee Eolika bawoo ca Guyane te di doomu Ukraine xam leen nag dafa woon fii ci réew mi ngir rek daal di ravitaay boobule bateau kàddu yooyu mu yëkkit nag ñëwul ngir dalal xelu benn yoon ñi nga xamante ni mooy douane sénégalaise liggéey bi moo ne cax ci ay xibaar ba tey patrouilleur sénégalais yi nag ràññee nañu boobule bato nag ay fan mu daal di taxaw ci waxu Sénégal raf ci doole nag contrôle bi ñu def nag jëm ci wàllu papier administratif yi firnde la nekk ne boobule bato nag wanewul benn kayit bu la ci sunuy koppar ñetti conteneur yooyu la ñu daal koy xayma lu toll ci ñetti milliards capitaine bi ak ñamu àndaloon ci boobule bato nag jamono ji yoon teg na leen loxo ñuy wéy li nga xam mooy enquête bi ngir xam ana fan la yooyu la ngànnaay daal di bawoo ak it fan la naroon teer yi saisi bile dalal na xelu chargé de projet bu ONG mouvement contre les armes légères en Afrique de l'Ouest mu di Youssou Badji waaye nag dafa am jaaxle ndax dafa am laaj yu euh, nekk ci boppam mu di cargaison boobule fan la jógee ak itam fan la ñu ko doon yóbbu mu rax ci doole di gën kaa néew juróom-ñeent ci euh, téeméeri million armes légères moom la ñuy defar ci àdduna bi ci anam boo xamante ne dëppoowul ak yoon te yu ci bari dafay euh, alimenter ay conflits sous-régionaux ñoo du ceeg moom. ragallu na tiitlu na pour bépp mbindeef boo xam ne yaa ngi Sénégal ko ñu demee noonu ñu koy bësee waaye tamit xaw naa ci dal xel parce que na ma ci ndax wane na ni suñu force de défense et de sécurité yi quand même ñoo ngi def seen liggéey bu dee terrorisme bi fële day encouragé nit ñi di jëfandikoo arme waaye tamit ci yenn type de trafic yi ci criminalité lu ñu naan criminalité transfrontalière yooyu aussi ñu bëri dañuy jëfandikoo ay arme suñu force de nañ seen liggéey waaye loolu di ay neuf cent million laa wax yoo xam ne mu ngi génn ci usines yi di tas ci réew yi euh, lu ci gën a doy waar nag quatorze milliards de munitions so dañ koy defar chaque année ngoog euh, Mansour mooy pratiquement laaj bi ñëpp di laajte fan la fan la cargaison boobu doon dem ba tax ñu bari tàmbalee tiit. muy question bi te xalaat naa ne enquête bi moom mooy li koy génne comme ñi yoroon bato bi teg nañu leen loxo. Mhm. li ci xaw tey xel mooy yàgg na ci waaxi Sénégal. ñu soog a def intervention xam ba xam bato lan la yab. Mhm. est-ce que dafa ñu woon campé noonu rek ci waaxi Sénégal. question la euh, am na lu mu fa doon xaar question la ñan la doon liggéey ñan la doon liggéeyal question la mais comme douane moom du def enquête day def am na leneen lu liggéeyam jëm. Mm-hmm. ñi war a saytu enquête bi ubbi nañu enquete bi mais man toujours dama ciy njiit jiital xel mu dal ak xol ba xel mu rafet. Mm-hmm. du ma ne Sénégal la jëm si woon. parce que néew na yu mel nii am te doo gaaw a xam destination bi fan la misaalu ñu ngi fàttaliku Iran ci jamono nguur Abdoulaye Wade xëy na que demul Casamance et cetera mais yii xamuñu fan la jëm donc dañuy bàyyi ak enquêteurs yi xëy na Sénégal sama noonu bañ a nekk seen destination. loolu mooy gën a dalloo xelu population bu Sénégal par contre nag euh, monsieur Sagna li mu wax sànq lu mot bàyyi xel la muy ngànnaay yi nga xam dañu koy liggéey ci façon boo xam ni jaaduwul muy tas mais xeetu ngànnaay yooyu. bu ñu waxee ay kalachnikov wala ay fital da ciy gën metti rek mais am na yu gën a garaaw tey da ngay tox ci mbedd mi marchand ambulant di jaay ay décharge électrique di jaay ay paaka boo amee 20 000 francs ñu jaay la benn mais décharge électrique lan la mën def ci nit ki mhm. mun na ko kaaj booy takk der yi moom la ñuy yor donc arme du rek ay fusil wala ay ay kalachnikov mais am yeneen xeetu arme yoo xam ne tey ñiy def ñi ñiy semer le bordel ci violence yi am ci politique yi façon arme yooyu la jëfandikoo yooyu faaw ñu xeex ko ba noppi balaa ñu wax ci yële parce yële na la tiit ñëw suñu géej gi reyagul benn Sénégal yu ndaw yi ñuy ñàkkal di ko jaayee cent franc mhm. ñi dee ci yëpp moo leen rey pratiquement ci ñi nga xam ni dañu dañu leen a